mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci uh, waxtu bi dañuy waxtaanee xew-xew boo xam ni xëy na fii ak fan uh, ñu fàttalikuwaat ko xew boobu nag juróon uh, kuréel gu mel ni M23 dal di juddu tey itam ñu raam xëy na ba yegg ci lu mel ni COS M23 ñu am mbégte lool dalal Abdourahmane Sow di coordonnateur u COS m boobu sëñ bi Sow maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci démb ak tey am mbégte lool sekk waxtaan week yow. bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala shafil seydina mouhamad wasalim soxna si maa ngi lay fay euh, di am mbégte bu rëy tey jii en tant que président de la COS M23 euh, seen xel daj ci ñun donte acteurs yi bëri na trop pour ñu mën a waxtaanee ci solos euh, M23 ci émission démb tey donc mbégte la bu rëy ci ñun mais ñu ngi ciy profité aussi sa auditeurs yëpp Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan yàlla suñu borom def ri jàmm ci réew mi et puis lépp luy jib tamit ci kàddu ci waxtaan bi dina nekk luy leeral ak luy yokk dafa réew mi incha allah. jërëjëf Abdourahmane Sow alors ni ma ko waxee fii fan yu néew ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk précisément Sénégal day fàttaliku xew-xew bu am solo boo xam ne dundoon na ko muy li xewoon 23 euh, juin 2011 bi nga xamee ni euh, président euh, Abdoulaye Wade bëggoon na fi teg li di ticket présidentiel bi ñaxtu yi bàyyeekoo woon fu nekk doomi Sénégal yu bari jugoon daje centre ville alors bala ñu yegg si ci mouvement beeg ni mu juddoo ndax mën nga ñëwaat ci xew-xew boobu ak li leen yëkkati woon bés booba. waaw xew-xew boobu nekk na loo xam ne marqué na histoire Sénégal c'est vrai que am na ay événements yu ko jiitu depuis très longtemps mais mën nañ ci jël par exemple les événements de dix neuf cent soixante huit mën nañu wàcc ba mille neuf cent quatre vingt huit ñëw dix neuf ñu fi rey ay policiers et tout ça donc booy jàpp l'histoire du politique du Sénégal a toujours été jalonnée par de hauts faits yoo xam ne day marqué askan wi ba ñuy yegg juin boobu ni nga ko waxee sànq euh, ticket présidentiel bi nga xam ne le président Abdoulaye Wade daf ko jébbaloon assemblée nationale way député yi euh, pour ñu voté ko mu changé nomenclature nar ñu indil un président ak un vice président ñu njort nekk def ci doon euh, bëgg a jaar pour jël doomam jébbal ko réew mi loolu nekk na fondamentalement li nga xamante ne taxoon na askan wi booloo way politique yi nekkoon ci kujje gi société civile ci benn kuréel muy le M23 mais balaa sax ñu koy tuddee M23. Mm. Euh, boobu amul tur amul dara. mu am événement bu am solo bu ko jiitu woon le deux juin ñu nekkoon dañu bëgg cee ñenn ci ñun doon fa daje ak ak ak opposition bi et tout ça. ñu ñuy ñëw daje fo am ay coow ak policiers yi le lendemain nag fekk loi bi waroon jaar fekk na nag am na benn travail boo xam ne yenn leader d'opinion yi defoon nañ ko ñu nekk ci ku jégi mais société civile ñu mel ni ñoom Alioune Tine loolu bokk nañ ci li nga xam ne moo favoriser bés boobu métti hmm. euh, woon lool askan wi daje buntu assemblée nationale xeex pour mën a rocci ak nangu seen kaddu ci ñi nga xam ne euh, moom la ñuy wax la démocratie indirecte booy dégg démocratie indirecte par la représentativité mooy ñoo xam ne dañ leen fal dénk leen alors la démocratie directe nag mooy bi nga xam ne peuple bi pàcc yi ñooy jug dëggal seen bopp ci ay taxawaay te kenn falu leen kenn yónniwu leen mais moom ñoom ñoo jàpp solo jug boobu dem ba taxaw loolu indi woon 23 juin fondamentalement ci démocratie mhm. mais ci biir waxtaan bi it mën nañ la wax ne que trois juin jour bi muy ñëw finalité la mhm. finalité la cest Mm. am na lu ko jiitu am na ak lu ko indi. dana dinaa ci je me permets loolu la ñuy commencé waat gis. sax ci ci bien sûr loolooy sax. Mm-hmm. waaw moom la sax commencé waat gis parce que l'histoire ne se répète pas day bëggee ni ñu koy mais am na yoo xam ne boo ko gisoon démb xam mujjantalam boo koy gisaat tey boo moytuwul mën nga njort lan indiwaat. parce que tamit 23 juin li ko indi mooy. Euh, kujje gi depuis 2001 dañu dañu am taxawaay bu ñu amoon. doon teg ay lu ñuy wax le régime socialiste bi nga xam ne def na fi quarante ans de règne président bi Diouf jóge fi ñu ànd fal président Abdoulaye Wade mais ci lendemain bi rek da nga gis ñu am ay juyatloo ñoom Moustapha Niasse Diène ak ay waa PIT créé le cadre de permanent de concertation alors diggante deux mille un boobu ba deux mille dañu def benn say booy seet am na fi ay ay ay mel ni assise nationale et en deux mm-hmm. yëpp dafa bokk ci li fédéré les forces de l'opposition boole ci société civile bi alors ah, moo am ay événements yu marquant yoo xam ne tamit dañ koy jàppee mal gouvernance jàppee ko manipulation des des institutions jàppee ko jaay doole jàppe ko dilapidation des ressources publiques jàppee ko dilapidation des ressources foncières loolu yëpp trop plein d'amertume boobu euh, bokk na ci li nga xam ne favoriser na Euh, kujje gi nekk benn mais taxoon na tamit askan wi dem ba nga xamante ni mëntuñu woon bañ a tegati seen bët ci li nga xamante ni moom lañ doon wax lu jéggi dayoo abus de pouvoir donc biñ demee nga indi projet loolu la ñuy wax la goutte qui fait déborder le vase boobu nag ñi nit ñi ko muñ mais dafa fekk tamit amoon na travail de sap boo xam ne opposition bi def nañ ko à un moment donné aussi ñu dem ba boole ak société civile bi def benn say donc 23 juin booy fàttali par exemple le cas Idrissa Seck nationale boobu nga xam ne fa la xeex bi amoon am na ay euh, député du parti yu fa nekkoon di yëg ci taabal yi di fecc kontaan ci ni ñuy doxalee réew mi loolu yëpp bokkoon na li nga xam ne daf ñu mettoon en colère boo ci boolee nag xaalis bi nga xam ne dañ ko doon jox ay nit di leen def ay milliardaires mode de gestion ba fa nekkoon loolu yëpp bokk na ci li favoriser 23 juin ñu bañ a jàpp rek que dañuy xëy rek ne que benn loi hmm. mais avant loi bi di am je pense que c'est une cuisine boo xamante ni euh, bëri na ay condiment yoo xam ne favorable woon nañ que wax dëgg yàlla nag fii la mën a yem askan wi génn daje ci benn ci bés boobu di euh, bu am solo boobu xeex fa xeex boo xam ne yàlla mujj nañu may ndam mm. te wax dëgg yàlla amoon na vraiment beneen visage bu mu joxoon démocratie sénégalaise. Mhm. gis nañu tamit bés boobu nekkul ne euh, par exemple yéen ñi doon euh, organiser bu dee mën naa ko waxee noonu yéen ay woo nit ñi mais dafa meloon ni nit ñi dañu génnal seen bopp euh, est-ce que dafa am benn liggéey bu ngeen defoon ci suuf vis-à-vis de population bi wala seen communication xëy na moo jote ci ñoom boole kook nag lañu ëmboon ci mettit ak i naqar daal di fees ba tuuru. waaw am na un travail qui a ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kujje gi dafa am liggéey bu ñu doon def di ci fédéréloo ay ay ay ay ay ay pàcc yoo xam ne ils sont elles sont représentatives comme des franges boo seetloo par exemple en 2008 bi ñuy def assise nationale nguur gi bokk ci woon seetlul ne que toutes les composantes qui ont pris part à la aux assises nationales booy set ñoom ñooy les acteurs euh, yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo sumb presque euh, vingt trois juin donc boo seetloo assise national société civile baa ngi ci woon kujje gaa ngi ci woon ay personnalité indépendante ñi ngi ci woon beneen bi ci des mooy opposition bi dafa nekkoon benn ñaar tamit dañu ci boole woon ñu mel ni ay ay ay ay borom kàddu yoo xam ne ñu mel ni ay Alioune Tine def nañ travail de sap bu méttee méttee métti euh, ci ci ci ci ci ci projet de loi boobu à travers la presse dem ci plateau yi dans les médias artu askan wi Euh, gën leen xamal ne que enjeu yi nga xam ne euh, danger la woon pour la démocratie sénégalaise selon lecture bi ñu amoon donc travail de sam boobu dans la communication dans l'alerte am ci am njëriñ beneen bi mooy aussi la presse dans ses relations euh, avec avec l'opinion parce qu'on parle de de la presse comme un pouvoir xam nga ñoom tamit ñu neexul ba neex journalistes yi bokk nañ ci ñi nga xamante ni dañu gën a fësal solos bés boobu ba nga xam ne askan wi nga xam ne daawul xam li xew euh, càmbaral nañ ko euh, en tout cas problématique yooyu yëpp ba nga xam ne euh, am na ci beneen lecture parce que boo ko boolee ci danger bi mu amoon ci sur le plan démocratique nga boole ci en tout cas perception négative bi ñu amoon de la gestion de Maître Wade du pouvoir mooy li ma lay wax bëri woon na ay affaire de conflit manipulation des institutions problématique de malgouvernance patrimonialisation de de l'État implication de la famille boo ci boolee loolu yëpp vraiment mooy li ma la wax la togg bu sotti la woon la boo xamante ni boo ko boo ko yekkee ñu lekk ko boo ko yekkul ñu lekk ko donc askan wi pare woon na xamoon na li xew gis na ne opposition bi euh, am na amoon na doole surtout nag dañu indaale seen famille parce que bu ñuy jógee assise nationale da ngay dem élection locale 2009 boo demee élection locale 2009 amoon na fi kuréel yu mag ICR Benno amoon na fi Benno Siggil Sénégal euh, ànd Siggil Sénégal dañ boole seen doole ak seen ay militants def ko mu nekk euh, Benno Siggil Sénégal donc nañ nangu aussi que ne way politique yi malgré que askan wi ñëw na mais nañ nangu beneen affaire c'est un jeu politique il faut l'accepter mm. et que ne ñu bëri ñu nekkoon ci bërëb ba am na citoyen sénégalais mais la majorité c'était des militants de l'opposition sénégalaise parce que ci boobu ay parti politique lañu bokkoon bañ fa demee lañ fa gis la majorité c'était des acteurs politiques ak seeni ay militants plus des citoyens sénégalais yoo xam ne ñoo dajaloo ñëw donc euh, way politique yi tamit nañ nangu quelque soit alpha que ne joué nañ ci rôle donte askan wi ñëw fekk seen ren si bu koy mujjëmtal nag mooy la jeunesse sénégalaise mm-hmm. jeunesse sénégalaise bi def ci am partition parce que les mouvements Y'en a marre ak seen dynamique bu bees vraiment am nañ lu ñu yokk ci communication bi am nañ ñu ñu yokk ci taxawaay bi parce que on les considère comme une organisation neutre boo xam ne ñi ngi représenté une frange bu am doole ci réew mi muy jeunes yi ñoom it dañuy ñëw bokk ci xeex bi jox ko beneen dynamique loolu li ma mooy li ma la wax sànq toutes les conditions étaient favorables à ce que jour boobu bu am ci histoire politique Sénégal parce que la ca waroon yëpp def nañ ko en terme de sensibilisation en terme de prévention en terme de mobilisation en terme de stratégie de combat loolu moo nekk finalité wu 23 juin. Mhm. ñu ñëw nag ci bés bi di 23 juin 2011 na ngeen ko dundee leer na ni da ngeen a fanaanoo fajaru assemblée nationale. waaw teel nañ fa dem ah, wax dëgg yàlla teel nañ fa dem mais euh, dañ fa demoon rek pacifiquement parce que tamit euh, quel que soit gis nga damay am lu may jàngal sama ñañ nekk waa COS M23 mm. nit bul akimoo mukk mérite bu ñëpp bokk parce que tamit am na ay conditions yoo xam ne bu amul woon lool du favorable imaginez un temps soit peu euh, le président Abdoulaye Wade ne kenn du mas manifester ci kenn du yegg ca bërëb gëm naa ni bés boobu li amoon du am il a la grandeur quelque part il faut le noter mm. de dire que nii dafa bëgg joxe une image positive de la démocratie sénégalaise xaw ma grandeur laa ko mën a wooye wala wala tamit stratégie la woon mm. mais de toutes les manières nañ nangu nekkal boo gisee tey jii problème yi am ñu naan bërëb bii doo leen fi taxaw bërëb bële doo leen fi taxaw ñun xam nañ xel ne day metti trop des fois ay dóorante lay laaj mm-hmm. mais nañ jël exemple novembre ou octobre je ne sais plus novembre bi ñuy dem ak Manko taxawu Sénégal buntu RTS ne dañuy jàll dem biir ville mais jour boobu jàlluñu doorante bi metti na ba ñun dañoo mujj dëpp donte bëri na woon nañ fa trop pour vous dire que ne des fois les forces de l'ordre bu ñu préparé ak ne dañuy gàllankoor yenn saa yi du yomb donc nañ nangu nekk la condition favorable bi gën a am doole euh, au delà de notre mobilisation et de notre détermination mu ne que le président Abdoulaye Wade moo permettroon ne que ñi ci d' accord nañ taxawee nii ñi ci d' accord nañ taxawee nale hmm. alors loolu tamit bokk na ci li favoriser suñu accès à la place fanaanoo nañ nag euh, comme niñ ko daan defee di def suñu ay stratégie d'approche mais à certains niveaux de de concertation xëy na doo xam dafay xew mais nañ jàpp ne que bañ fay ñëw nous étions très lucide parce que il faut jamais oublier qu'on était à deux pas du palais mm-hmm. et que bu débordé woon rek mën na indi njaaxum ci réew mi pour vous dire que ne juguñu woon pour taal réew mi juguñu woon pour renverser un pouvoir mais niñ jugoon en tant que citoyen sénégalais souverain effectivement de nos yi nga xam ne constitution daf ñu ko may ñu dem taxaw ne loi bii ñu fiy voté d' accord ko parce que boo leen seetloo tamit toujours dans la sensibilisation am nay actes yu fort yu suscité les mois la consternation parce que bu ñu fàtte ne que euh, Cheikh Bamba Dièye député génn def acte bu symbolique mm-hmm. jël seen takk boppam ci biir yi mm-hmm. ñoom met El Hadj Diouf tamit am nañ fa taxawaay dans la communication ñoom Alioune Tine les leaders politiques xëy na ñun tey jii ñu am amuñu ko woon mm-hmm. mais tamit le travail de terrain vraiment dañ ko def parce qu'on avait la détermination de porter un combat démocratique maintenant jubluwuñ ci woon wax dëgg yàlla pour taar réew ba nga xam ne am nañ doole trop am na ñu doon rëccale sax naan nañ dem palais ñu ne leen déedéet ñëw dem palais taxu ñoo jóg donc teel nañ fa dem commencé di manifester maintenant manifestation loolu boo gisee keroog bi ñoom Guy Marius Sagna demee palais mm-hmm. gars yi xaw a ragal da nga leen di comprendre parce que ñoom it ña nga foon le président Macky Sall boobu candidat la ak ay waa këram ñoom président euh, de l'Assemblée nationale Moustapha Niass ña nga fa xam nañ manifestation bu débordé kenn mënu koo moo tax ñu mooy ci ne kenn dootul jege bërëb yooyu parce que xam nañ ne askan wujub fippu kenn mënu koo téye alors coow loolu moo situation boobu moo amoon keroog force de l'ordre bi ñëw nañ fa xëy na nañu waroon taxawee wuñ ko wala boog yàlla tudd na ko mais on était tellement déterminés même les leaders étaient dépassés nga gis ne que Sénégal jour boobu on devait marquer l'histoire ñu songanteeg ñoom ne leen tey loi bi du fi jàll mm-hmm. je vous avertis que xëy na amoon na xeex ci biti hmm. mais aussi amoon na xeex ci biir amoon nañ ay fa du député yu fa mais il faut même admettre que y a eu de la majorité yoo xam ne ils étaient contre la loi hmm. am ñoo xam ne def nañ fa liggéey bi ñu fa war a parce que loi bi tamit depuis ñu yóbbu ko en examen coow laa ngi commencé ñëw euh, ñu nekk pouvoir xamoon nañ ne askan wi du nangu te na taar réew mi na ñenn ci ñoom wala sax xëy na ñoom buñ ko voté woon du ñàkk moo euh, répercussion ci ñoom bien sûr parce que c'est le jeu politique des fois dañuy foog ne ñëpp dañuy jublu ci décision euh, du chef le président de la République alors que am na ñoo xam ne ñu ngi ba tey dafa am vous me permettez mhm. y a des acteurs sénégalais yoo xam ne dañuy sol mbubbu médecin baa ñuy sol mbubbu député baa ñuy sol mbubbu mbubbu ministre baa ñuy sol mbubbu conseiller président de la République mais c'est des citoyens yoo xamante ne amaana li ñuy lijjanti ci réew mi ci seen ay taxawaay dans la confrontation interne ñun ñu njëriñ boobu amuñu ko xëy na ñun rek la gis. Mhm. am na ñoo xam ne c'est des patriotes dans l'âme xam ne yenn yi duñ ko nangu même bu dee président de la république moo ko décidé. mais des fois seen doole dafay néew. Mhm. ñun taxawaay bi ñu mën a am. ñoom duñ ko mën am. Mhm. parce que tamit boo ko xoolee ni réew mi di doxee nga comprendre ne que ba loolu ba léegi loolu ñu am. Mhm. parce que information yi gars yi di am des fois si yenn yenn yenn yenn yenn yenn euh, scandale financier yooyu. dafa am ñu koy génne daf mhm. ne. waaw daf lay wóor ne dafa am ay patriotes yu nekk foofu yoo xam ne ñoom ñooy jonee l'information pour que askan wi mën a am euh, ay relais yoo xam ne dinañ dinañ alerter. Euh, am taxawaay bi ñu war a am donc jour bi loolu la ñu dóorante fa dóorante fa. ñu bañ a fàtte ne que am na yeneen frange très représentative yoo xam ne tamit génne seen partition te nekk ñu woon sur place. Hmm, ñu mel ni waaw ñu xalif généraux yi. Hmm. parce que boobu bi ñuy bi ñuy dóorante nag xeex bi metti lool ñoom it ñi ngay wax ak président de la république. Hmm. mooy li ma la wax sànq ne mbir bu sotee bu kenn a moo ne. maa ko moom parce que amaana. voilà ñëpp a ci jaar am na ñoo xam ne ña ngay liggéey loo ci yëgul wala loo ci xamul te xëy na si la ngay def ëpp ci njëriñ. donc amoon na xalif généro yi ci côté murit yeeg ci côté tijaan yeeg ci yeneen kër yi l'église ak ñëpp jàpp nañ ci ñii wax la ñu mën ñii conseiller la ñu mën ñun ñi nga xam ne nag euh, ay ay jeunes la ñu woon euh, ay militants mobilisés la woon am détermination bi wàcc nañ ci terrain bi à nos risques parce que jour boobu nit mënoon na ci dee ñii yóbbu nañ leen hôpital ñi toj nañ seen bopp euh, ñii nekk def nañ leen ko et puis li ci gën a marqué mooy biñ demee ba ñu ne loi bi jàllatul mm-hmm. Euh, bi tisbaar bi passé mm-hmm. wala bu tisbaar jotee mm-hmm. ñun ak GMI policier yi ñu doon dóor mm-hmm. ñoo doon jullindoo tisbaar ndox bi fa militant politique yi doon indi ñun ak ñoom ñoo ko doon bokk di naanandoo mu mel ne dara xew à la limite boo juumee cam nga ne ñii dañ doon théâtre mais bis boobu bi bi heure añ jotee tisbaar bi euh, mi tombeek naaj bu tàng jër dafa mel ni da ngeen a pausoon waaw dem dem noppalu ji ndax man maa ngi mm. woon centre ville ca bis ba mais subitement mm. après yëf yi reprendre donc ci diggante bi xëy na la euh, saafonte googu am diggante yéen ak policiers yi. waaw ci diggante boobu la parce que boobu on avait était informé. Mm. que ne am na ñuy travailler le président. pour que bi bañ a jàll d'accord pour que loi bi bañ a jàll parce que dafa amoon ñu nekk ci biir dañu lay di la wax li xew li fa xew. ok et loolu dafa doon dafa doon jouer suñu ay ay ay position parce que tamit nañ si. jeu bi boobu dafa sol tenue rek mais citoyen Sénégal la dëgg la amaana sax li ngay xeex da cee ànd mais ah, fa mu féetee moo tax du ci mën waaw yenn exemple keroog bi loi bi jàll bi ñuy dindi poste premier ministre bi mm. Abdoulaye Boun Dionne mm. man ak euh, Guy Marius ak euh, Babacar Diop ñoo fa dem bañ ñu jàppee yóbbu ñu central dañuy wax dëgg rek te yàlla tax à la limite euh, dañ la doon dañ la doon raay di la fóon bu dee loolu nar na yàq seen liggéey nañ ma baal mais pour vous dire que c'est des citoyens sénégalais même bu dee des fois ànduñu sax la ngay defee wala la ngay def sax boobu de jox nañ ñu cër ba da foog ne dañuy far yow pour vous dire que nii boo demee ci sàppe jàkk ji amaana ki takkaloog yow c'est un général de corps d'armée mm-hmm. amaana ki takkaloog yow c'est un directeur d'une très grande structure amaana ka ca topp tamit ab ouvrier la mais ñëpp la yàlla suñu borom yemale ci benn sàppe mhm. kenn du xàmmee kenn pour ñu mën a effectivement au principe mhm. donc ñuy jàpp xel ne que des fois ma gis ñoom ñu déborder seen liggéey on les rappelle à l'ordre mais n'oublions jamais que ne des fois euh, damay jël benn exemple mës nañ fi def marche bi ñuy def euh, monument de la renaissance mhm. waaw boobu dañu xëy fajar dem buntu université di dóorante dóorante bu metti ba al amin yal na ko yàlla yërëm mm. xaare ko àjjana woo président de la république ne ko na bàyyi gars yi manifester mm. boobu ñu ngi war a départ eh, école normale mais jour boobu kenn suñu euh, ñi ñu àndal grand frère mu bokkal ndey ak baay moo doon jiite policiers yi ah oui policiers yi ñu doon dóor mm-hmm. moom mi ngi ànd ak ñun papa ki mu bokkal ndey ak baay da laa wax mm-hmm. bugguma tudd ci policier yi ñu doon dóor la bokk te ci hmm. dóorante boobu amaan na lenn mënul na rëcc jógee ci loxoom dal ci kaw rakkam mu dee hmm. pour vous dire que c'est des situations extrêmes yoo xam ne kenn hmm. warul fooy réew bañ fa yegg te li ko indi yëpp de nag nañ ko wax mooy la boulimie bi ñuy seetlu la mal gouvernance bi ñuy seetlu le manque de volonté politique bi ñuy seetlu parce que ñi ñuy jiitee li indi am vingt trois juin beeg ñoom ñëpp c'est des acteurs yoo xam ne biñ nekkee ci ku gi lu ne lañ fi dénoncé xeex nekk engagé nañ ko fi nit bu ne dee na ci seen wet malheureusement yàlla nañ ci yàlla musal saa ñu yegsee si pouvoir bi mm. lañ doon xeex yëpp dañ koy appliqué et tey jii mu neex mu naqari ñu bëgg ko ñu bañ ko nga far mm. farfaruloo loolu lañu fi gis tey et j'en pour vous dire que loolu doon naat mooy l'amoncellement de certaines frustrations ba nga xam ne aboutissement am mooy un soulèvement populaire wala un mobilisation populaire boo xam ne li ñu firnde ci réew bi ndeysaan tey par le foncier ndeysaan tey par les les les contrats acculés. Hmm. ndeysaan par la malgestion de de la Covid. ndeysaan tey par la le le la mauvaise le mauvais fonctionnement de nos institutions mi ngi ruuma naat ma ngay dajaloo waat di ñëw nànk naaj te ñi yor réew mi buñ firnde gu ni mel mën na ñëwaat ci suñu kanam. te boobaa nit ñi ci dañuy ñëw. Mm. Mm. accord dinañu dinañu ñëwaat ci tey ñu des ba tey ci démb ak bésu 23 mm. juin boobu. naka nga gisee aussi taxawaayu police bis boobu ndax euh, constat bi sànq euh, junj nga ko. constat bi mooy bës boobu li muy metti metti li muy tàng tàng. nit ñu bari aussi ak mbetteel gi mu àndal. Euh, bakkan rotu ci alhamdulilah. te pour mooy que ça nit faatu na ci. ndax police la. wala euh, lan moo xew ba xëy na yeggu leen ci extrémité boobu. waaw dañ ci sant yàlla parce que aboutissement bi yëpp yàlla suñu borom la gis nga bu ñuy dajee. Hmm. Euh, des fois fi muy tàkkee doo ko sa xam. Ah, parce que li weesu vingt trois juin tamit am na fi ay daje yu bëri yu fi am. waaw booy fàttaliku janvier deux mille bi suma juumul ci la Mamadou Diop ñàkk ah, bakkanam hmm. waaw bokk na ci sama genre yi bëgguma di di di rafetal sama bopp. Hmm. mais bari naa ci ay morom bu ñuy ñëw manifester. Mhm. dañuy yem rek ci principe bu ñëw manifester seen droit. ok pacifiquement. Mm-hmm. mais buy déborder doo xam fu mu yéegee des fois dañuy infiltrer. Mm. des fois euh, ñi ñuy àndal du ñuy ànd ak seen sago ay nit rek lañu. Mm. mën na ñëw seen yaram tàng. des fois mu am ñoo xam ne dañ fay ñëw ñu yónni leen pour ñu indi ñu def yëfu caay-caay. Mm. waaw bu ci ñàkk daal loolu yëpp c'est des choses yoo xam ne tu tu obligé de les gérer moo tax man mii euh, du ma ne dama dellu ginnaaw dama jëm mag damay gën a parce que tamit du ma bëgg ñu ne woote bii mu woote moo tax nit dee ci mm-hmm. et les risques son toujours la mm-hmm. booy booy woote nit yi dañ lay wuyu si dootoo xam ñan ñoo lay wuyu si donc quand ça déborde avec avec tempérament nit ñi avec motivation nit ñi doo ci maîtriser dara ba des fois bu débordement di am kenn ci ñun mooy xëyakati jékki affaire rek sànni maa saaga maa songu hmm. ñe ñeneen ñu ni mel ñëwoon fa ak seen motivation bu bokk ak suñu ba song dootoo mën a kay te kenn une foule kenn mënu ko maîtriser hmm. policiers yi riposté hmm. wala ñu jékki-jékki suñu bopp tàng ne nañ jàpp yoon bi policiers yi riposté parce que tamit il faut accepter une chose les policiers débordent dans le travail des fois ñu def lu jéggi dayoo ñaaw mais duma ci wax souvent ndax médecin bu bon bi moo tax nga naan médecin yëpp bon mhm. ndax policier bi juum bi bi bi ñàkk maîtrise des fois sax ma bakkan rot ci ndax mooy tax ñu naan policier yëpp bon alors c'est des situation qui nu dépassent ba tax na il faut ñu accepter que ne chaque fois ñu jël décision ne dañuy dem dans la mobilisation nañ jël risque yooyu yëpp ne dina am des fois y aura des yoo xam ne dañuy tàggal ko seen sago ñu naan dóor nañ nit mu dee des fois ci biir manifestant yi tamit dafa am ñoo xam ne dañuy yor arm wala leneen moo leen di motiver doo ci maîtriser dara bi ci des nag mooy les enjeux parce que tamit 23 juin xeex la woon rapport de force la woon parce que loi boobu bu jàlloon jàpp nañ suñu xalaat que ni réew mi dañ ko naroon def un un patrimoine euh, familial. Mm. loolu lañ ko naroon def patrimonialisation de la république yaa ngi may dégg. parce que ndono et loolu lañ doon bañ parce que moo tax tey jamono ji du ñu mën a déggoo ñi yor réew mi parce que loolu fa am ci 23 juin ñu nangu ko ñu bañ ko turu Karim Wade def ci fës kan mooy Karim Wade mooy doomu président Abdoulaye Wade lan lañ ko doon jiiñ dafa bëggoon jël réew mi jébbal ko ko par des stratégies. nañ ko xeex ba ay nit dee ci nit gaañu ci réew yàqu ci ci benn fan te jii boo dellu soité nekk ci wax dëgg yàlla dafa mel ne la nga doon xeex ak li ñu doon xeex bokkul mm-hmm. donc bu ñu demee dans ces mouvements de foule on n'impute pas forcément la responsabilité à la police xam nga kan mooy responsable mm. ki motiver loolu ki motiver loolu mooy ñi yor réew mi parce que dafa am une responsabilité morale et une responsabilité pénal la responsabilité euh, pénale bi mooy wala légal bi mooy par rapport aux institutions lan lañ la may ak luñ la c'est vrai que lu ci bëri soxna si lu Ablaye Wade daan def le hmm. président Ablaye Wade <clears throat> c'est sur la base de la légalité hmm. bu ñu xoolee ba set. waaw daf koy am lu koy teg non suñu ay texte may na ko ko. Hmm. il a le droit de soumettre une loi à l'Assemblée nationale. <clears throat> parce que loolu mooy loi moom mooy liggéey Assemblée nationale. Euh, alors que constitution bi <clears throat> sul wax ne président mën na soumettre ay genre de loi yépp ba mu des pour doomam tey jii bu ñu amoon constitution boo xam ne dafa nekku ku nekk président de la république sa doom mënul am lii wala sa rakk wala sa sa mag wala sa tante wala sa yaay am par tel post parce que yow am nga poste bi ba pare sa c'est une bonne loi c'est vrai que des fois dañ naan dañuy enfreindre les les droits d'un citoyen mais bu dee loolu mooy aar askan bëgg naa boo demee conseil municipal hmm. bu Dakar ba mu fay falu en deux mille cinq bi ñu préfet di installé en deux mille neuf euh, Jean-Paul Diaz il était élu. Hmm. ci liste euh, BCG. Barthélemy Diaz doomam il était élu ci liste Benno Siggil Sénégal. Hmm. mais préfet dafa ñëw lire code collectivité bi. code bi nee na à un degré euh, tel degré à un tel niveau de de de de parenté. kenn ci yéen ñaar faw mu démissionné parce que day indi conflit. Hmm. ñun genre loi yooyu bëgg nañ. donc suñu loi yi <clears throat> bi le président de la république Abdoulaye Wade faloo quand il faut dire que il a renforcé le pouvoir présidentiel. Mm. yokk ay sañ-sañam ba nga xamante ni nous sommes presque dans un royaume benn nit mooy gum mooy gum ni ci lépp ci réew mi mais genre pouvoir yooyu boo ko amee da ngay naagu donc loolu moom moo indi woon problème bi maintenant ñooñu bu ñu abuser de leur pouvoir une police aussi républicaine que celle sénégalaise parce que cette même police bi ñu doon dóor bi fi et que police bu responsable la quelque part parce que tamit bu renversement amee ci réew mi dañu waxante dëgg rek. Mm-hmm. fay euh, yendal du ko fa fanaanal. Mm-hmm. déedéet nañ dem jëlee fi président bi koo fay teg ndax yow ka nga fay teg man dinaa ko d'accord wala keneen di ko fa d'accord mais réew day jaxasoo. Mm-hmm. donc enjeu yooyu des fois askan wi du ko calculer. parce que askan wi li muy calculer mooy. dafa kii rek lay bëgg a waaw askan wi dafa mar. Mhm. askan wi liggéeyul askan wi fajiwul askan wi xëyul gontul euh, askan wi li mu gis mooy groupe nit boo xam ne dañuy nekk di dénoncer une situation ànd ak ñoom buñ faloo. Mhm. jël lépp ci réew mi séddoo ko ak seen i waa kër ak seen seen benn groupe bu ndaw. li ñëpp waroon bokk ñu jël ko teg ko ci loxow benn groupe moo xam suuf la moo xam post la moo xam xaalis la moo xam intérêt bu mu munti doon léegi la majorité bi nga xamante ne ñoom ñoo la fal nekk les souverains parce que ñoom seen kàddu nga yor ñooñu on les prive de tout mais askan boobu day fippu donc ñi nga xam ne ñooy jiite réew mi ñoo waroon am dayo ne mënuloo nekk président de la république pour pendant douze ans alors que deux fois cinq cinq ans parce que fu mu mujj après beneen débat ñëw na mooy bi ñuy wax euh, troisième euh, candidature mm-hmm. après nga teg ay ay stratégie ay loi yoo xam ne nit ci dañuy jort ne da nga bëgg a jël réew mi jébbal ko sa doom gannaaw bi nga jëlee quatre ou cinq ministères teg ko ci loxoom mm-hmm. mais loolu tamit kenn mënu koo nangu damay jàpp ne que nguur yàlla nañ ci yàlla musal dafa ànd ak seytaane mm-hmm. ndaxte lépp li ngay naan baaxul di ko xaasee waa P waa PS bi nga xam ne am nañ ci ay responsabilité xeex ko pendant vingt six ans ñëpp di la di la di la di la tatagal ci ci taxawaay boobu mm-hmm. bi nga ñëwee ci ay fan yàq nga ko ci ay abus am na nag lu baax lu bëri lu fi président Abdoulaye Wade def mais nañ nangu tamit nekk am na lu bëri lu mu yàq ci réew mi te loolu mooy ñuy topp ba tey mm-hmm. parce que nit ñi àndoon ak ñoom groupe yi ñoom ñoom set ñoom ñooy réew mi réew mi ba tey. Mhm. boo ci boolee yenn yenn transhumants yi ak yenn yenn ñu mel ni ay ay Moussa ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon dénoncé. tey ñoom ñëpp ñu ngi ci même dynamique bi. Mhm. donc ñi yor suñu réew ñoom problème bu fi am ñooy jël ki nga bokkal ndey baay tey mu nekk fi nekk policier salaire am euh, bu ko cee am mu war a yor sutura njabootam mais dafa war a liggéey. war a sàmmi réew yow mi nga xam ne citoyen nga souverain nga ya yaa dénkaane pouvoir boobu nga war a ñëw mën a kaas say droit ñuy jàmmaarloo leen ci loo xam ne manipulation la politique politicienne la dictature la abus de pouvoir la ñooñu ñooñu tooñ donc problème bi dootul policier yi ak ak askan wi mm. mais bi ñi yor nguur si euh, seen i gàtt ak seen seen seen seen seen seen euh, doyadi ñàkk yemb ndaxte dara gënul ñaaw la nga doon wax baaxul te mu wóor baaxul boo ñëw di ko jëfee yow yaa yées ka nga doon dénoncé. Mhm. alors ngir jeexal ci bés boobu ndax euh, yaakaaroon ngeen ne président Abdoulaye wadd dina dellu ginnaaw bi ngeen di xëy di dem euh, centre ville buntu assemblée précisément ngir manifester ak itam bi ngeen yëgee ne officiellement reculé na hmm. ban yëg-yëg ngeen am. xam nga le président Abdoulaye Wade dafa yàgg c'est un démocrate certes mais dafa dafa ñeme xeex. bon xaw ma ci ci xelu ñeneen mais man de wax dëgg yàlla xaw ma woon ndax dina renoncer am déet parce que la am jour waaw xaw ma dama woon daal dañuy dem dañuy dem manifester dañuy dem manifester du hmm. ñu am jël donc état d'esprit boobu lañ demee bañ demee ba mu renoncer am nañ ci satisfaction bu rëy euh, bi ci njëkk mooy am na un élan de solidarité nationale mooy li ma la wax ne ñun ñëw nañu xeex ñeneen ñi woote nañ téléphone mm-hmm. ñeneen ñi def nañ pression des députés de même de la majorité ont renoncé euh, ay ñoom Moussa si jour boobu am nañ fa ay ay taxawaay yu yu am solo. Mm. te pour pourtant ci majorité bi lañ bokk. Euh, ñoom ñi nekk ci ci kuje gi naka noonu sëriñ si wooye tout ça mm. donc ci la ñu am lu ñu réew buñ boolee doole bokk fañ jëm dañuy dañuy mm. kooku benn ci boobu am nañu dem ba ne mm. sax euh, maam Abdou Aziz Sy baax yàlla yàlla yokk yërmande ci moom ne joué na ci partition ndax député yi xëy na fàttali nañ leen kàddu yi euh, maam Dabakh yëkkati woon jëm ci seen liggéey ak ni ñu koy doxaleek ak seen responsabilité donte wuute na parenthèse la woon waaw waaw donte wuute na wax dëgg yàlla kàddu yooyu booy seet moom la ñuy yendoo semaine boobu yëpp di ko ci teg ci rajo yi waaw pour fàttali nit ñi nan la nguur war a mën a taxawee vraiment ñu ngi koy sànni gis nga li nga wax dafa am solo euh, que ne nekku fi sax mm-hmm. mais joué na ci mais beneen nit mënu ma jeexal te du ma am ku ma tudd turam muy le député bi ñu gën a jàppee ne que c'est un député du du du du mu ko doon assumé muy le président du groupe parlementaire euh, Doudou Wade mm. waaw la mu ci jox pour pour loi bi bañ a jàll mm-hmm. waaw xëy na bu génnee di ko wax hmm. gars yi la ne day sóob mais yàgg nañ di waxtaan dafa nekk koo xam ne dama war ko respecté parce que da ngeen di waxtaan wala nga gis ko ci plateau yi. Hmm. muy nangu erreur yi ñu daan def. Hmm. ak manquement yi ñu doon am ça c'est de la grandeur. ñu koy nuyu passage ñu koy nuyu au passage mais tamit. ci taxawaay boobu it donte majorité la bokk vraiment mm-hmm. bokk na ci ñi travail l'esprit du président de la république pour mu mu mu dellu ci ginnaaw mm. donc loolu tamit ñu koy ñu koy saluer mais bi ñu yëgee ne le président de la république dellu na ginnaaw donc satisfaction boobu mooy mooy am bu ci njëkk mm-hmm. mooy euh, wax dëgg yàlla euh, su am na jàng nañ ci solidarité baax na mm-hmm. l'effort communautaire baax na ñëpp dañ ci jàpp beneen bi mooy moom it nañ ko nangul nekk quand il a buté bien quand il s'est rendu compte que le peuple a résisté. Mm -hmm. il a reculé. ce qui voudrait dire que ni eh, askan bu taxawee am pas-pas ba mu war a am. Mhm. lu nit am am am am am doole mën naa dellu ginnaaw même mhm. sous le président de la république. Mhm. ba ca des mooy dañoo sant yàlla. ba ñu sant yàlla mooy dóorante neexul. waaw soxna si xeex eh, baaxul. ay ak fitna baaxul. oto yaa ngay tàkk réew maa ngay tàkk ku nekk ci ñun mënoon na ci ñàkk ñàkk bakkanam man dóor nañ na fa dóor yu métti si boobu. billaay dóor nañ ma fa ay liif yoo xam ne bu daloon sama xam tey ji ñi ñi ngi ci pouvoir bi yël nañ liif dóor leen ko seen crâne ba scanner euh, fii hôpital fan lañ leen mujj indi man maa yor maa doon leen leen dungee ci dossier yi am na ñoo xam ne balaa blanc toj na seen i chair seen loxo bu boo ko gisee da ngay jàpp sa bopp hmm? wallaay lool yëpp fekkee na fekk nañ ko fa dóor yu ñaaw ñii dañ leen di dóor gémi yi xeetu métiteur bu ne def nañu ko parce que ñoom non seulement ils étaient dans dans le rétablissement de l'ordre public mais au-delà aussi ils ont peut-être pour leur vie hmm. waaw nañ ko nangu parce que tamit nañ nangu ne ñoom it bu ñu ñëw des fois dañuy am xel ñaar ndax dinañ ci muccam déet mhm. waaw gis nañ fi Fodé Ndiaye biñ koy dóor bopp xeer ci bopp neexuñu mhm. sénégalais la donc yooyu yëpp da ciy am donc seen yenn saa instinct de survie mooy ñëw merci beaucoup yooyu amoon na ci donc biñ demee ba nga xam ne kalme wu na la loi ne pas passée ñun ñu si dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin mm. bi ay bi yemee fii parce que lu ay du yem ci bopp borom. ndax yéen li yëf yi métti mm. métti parewuloon woon pour dellu ginnaaw. non non non non non da ngay saa paase ou saa kase. parce que am na fu ñu jekk woon man ñun bi ñuy ñëw déjà bi ñuy préparé combat bi euh, ku ñu waxoon dinañ leen ubbi les les voies ba ngeen ñëw buñ assemblée nationale. duñ ko gëm mm. waaw loolu yëpp mbiru yàlla la moom moo inspiré ab le président Abdoulaye mu def ko beneen bi mooy l'issue du combat xamuñu ko woon. waaw mais quel que soit alpha il fallait que ñ ñu taxaw. Euh, jouer une partition parce que baax na ci réew tamit des fois yenn conflits yi am confrontation yi am mm-hmm. nga xam ne administrateurs yi gouvernants yi dañ xam ne euh, askan wi tamit Euh, ñàkk ñu dignité parce que des fois ñàkk dignité la ñu lay toroxal nga kay nangu des fois ñàkk dignité la la nga moom ñu koy foqati di ko jox ñoo xam ne yeewuñ ko lu dul ci juddu diw mooy sama baay wala diw mooy sama lii te booy set mooy feebaru Sénégal tey li ñëpp bokk la benn groupe bu ndaw jël di ko séddoo seen biir ñi si des il faut ñu mar taat te baal ma ci wax ji mm. il faut ñu ñàkk seen dignité il faut ñu nekk di siboor il faut ñu nekk di def le sale pour au moins parce que damay wax temps yële sama benn collaborateur Abou Diallo ma ne ko Abou tu sais la normalité au Sénégal la la règle au Sénégal c'est que ñëpp waroon ñàkk jom parce que c'est que ñëpp waroon ñàkk seen dignité parce que système bi demee na noo xamante ni la ñëpp bokk dafa am ñaari ñett ñu ko téye boo newul ci la neex nit yi doo am loo yóbbu si kër doo liggéey doo def dara loolu day yàq réew moo tax bu la fi yàlla may as tout ay valeur bu ci naagu foog na yaa jàmbaar. Hmm. parce que li yi c'est favorable un pays pauvre très endetté kenn amul dara boo sàgganee ñëppay ñàkk seen valeur. Hmm. parce que ñi leen jiitu ñoom ñoo amul vraiment générosité ñoom ñoo xamul seen i ay wareef donc jour boobu euh, bokk nañ daal ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ sant nañ suñu borom julli seen naamu salaa salaam. parce que mënoon nañ ci ñàkk suñu bakkan. Hmm. suñuy ay morom mënoon nañ ci ñàkk seen nit ñi mënoon nañ juum dem pale mhm. te duñ leen bàyyi ñu yegg fa fetal jib leneen ak leneen mën na fa am donc buñ demee ba yàlla def ñu xeex am ci ndam mhm. lu ñuy njëkk def mooy su jootal suñu borom sant ko ci lu bëri ci ndam li ñu may euh, ci li prise de lucidité bi am mais surtout li nga xam ne fa ay bi yemoon si en tout cas ci jour 23 juin boobu te vraiment ñu am ñu atteindre suñu ay objectif mooy ñu reculer ci loi bi. ginnaaw bés boobu Abdourahmane Sow euh, njiital COS mm-hmm. M23 ma fàttali yow la ñuy dalal ci dem ak tey waxtaanee bés bu rëy boobu nga xam ne Sénégal dund na ko. en 2011 mm. alors ginnaaw bis boobu euh, ci ngeen nekkoon kon lii dañu koy wéyal taxawal mm. nag M23 muy mouvement du 23 juin lana mm. nekkoon seen objectif ginnaaw bis boobu xam nga mooy li ma wax rek dañu doon xeex pour ñenn ñi depuis 2001 un combat démocratique pour restaurer certaines valeurs euh, de gestion euh, am na ay ay ay ay pàcc yu ci juddu lu ci mel ni cadre permanent de concertation certaines coalitions politiques ñu traversé 2001 dem 2007 boycotté nañ fi ay élections mm-hmm. yëpp ay conséquence mais nañu wax dëgg ne que am na leader yoo xam ne am na ni ñu téewoon bàyyi woon ko tey jii mi ngi ngay jël yàlla euh, président Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla suñu doom jéggal ay ay ay njumteem euh, euh, xaare ko àjjana mm. am nañ ci ay taxawaay yoo xam ne dañ ko doon dañ ko war a reconnaître mm. ñoom Moustapha Niass ñi nga xam ne tey jii yàlla nattu na leen lañ doon xeex at boobu yëpp jamono yooyu yëpp tey jii dafa mel ni dañ ko dëpp am na ay taxawaay yu ñu fa amoon mm. ñoom Amath Dansokho ak ñeneen ak ñeneen ay yaanaamaar ak ñun ñi nga xam ne ñoo doon ay les jeunes du M23 nekkoon les jeunesses de ces partis politiques mm-hmm. ñoom Idriss Seck ak ñoom Thierno Bocoum ak ñoom Badara Gadia ak daal mm-hmm. ku leen juum alors dafa am loo xam ne dañ ko doon xeex ñun boobu dañ ko gëmoon tey la ñuy doog a commencé di mais boo nekkee ci ci ci digg yoon bi dootoo doo doo doo am na yoo xam ne doo ko mën a natt muy restaurer une république par rapport au au au au politique de gouvernance de gouvernement bi fi doon am. Hmm. par rapport ak ak démocratie bi ni muy doxee. jéem a constitution yi boo seetloo bi ci ëpp solo ci liggéey yooyu ak daje yi mooy assise nationale. Hmm. assise nationale en 2008 dafa am loo xam ne daf ko eh, proposé woon presque constitution bu bees avec beaucoup de réformes yoo xam ne même doon nañ sax genre régime parlementaire pour équilibrer euh, vraiment les pouvoirs. Hmm. même tey jii coow li bëri na mais le haut conseil des collectivités territoriales foofu la njëkk génne dama koy wax souvent ci tey tey tale yi nekk dañ ko mm. proposé woon waaw yooyu yëpp ay démarches yu bees la woon yoo xam ne gars yi waxtaan nañ ci woon ba nga xam ne dañ ne woon bu ñu jëlee pouvoir bi lii la def comme que nag ci réew mi di président de la République malgré que c'est démocrate foog naa ci jamonoy Assemblée nationale mm. mënoon na woo acteurs yi wala mu ne jox leen moom ko ma lu mu ci jéem a def. Hmm. mais dafa mépriser woon minimiser woon euh, dynamique boobu. te dafa amoon ay de très grandes personnalités de de de de de de du Sénégal. Hmm. biir réew ak bitim réew. Euh, forum civil a ngi fa woon ñoom Amadou Mahtar Mbow ñi nga ci woon. Euh, parti politique yaa ngi woon société civile ñëpp ñu woon ci biir assise national ba mu nga juddoo forum civil ci Mamadou Mbodj moom it maa Mohamed Mbodj maa ngi koy ñaanal Euh, nit ku baax yàlla na yàlla suñu borom xaare ko àjjana assise nationale ci bureau boobu la judd ñoom Ousmane Tanor Dieng ñoo ko fa ñëw proposé après euh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñu jàpp ci nànk nànk nànk ba ba ñuy dajee fële ci hôtel ba hmm. ba muy ba nit ñi di dafa amoon ay projet yu ci nekkoon projet politique ak euh, projet de société yoo xam ne ñu ko nànkoon à un moment donné dañu am nañ opportunité pour matérialiser ko à travers la gestion d'un am ndam lu rëy loo xam ne mosuñu ko foog ñu ne nañ continuer comme que nag président de la république fi nekkoon nangu woon ubbi ay buntam ñu mën a waxtaan ci projet yi ñu yor da ñun de nii lañ xalaatee ne lañ war a yore réew mi ñun nañ ko jéem a defal suñu bopp ci lañ tegee kuréel euh, M23 bi mi ngi juddoo euh, fële rado biñ koy biñ koy biñ koy officialisé ñu jël un homme neutre un nom du boo xam ne tamit wax dëgg yàlla engagement am Euh, mu tudd M23 euh, te duñu tudd Alioune Tine duñu tudd Alioune Tine président ancien président de la RADDHO actuellement mu nekk président Afrique Jom Santé euh, ci consensus bi amoon autour de sa personne parce que boo leen seetloo li ci judd yëpp ci activité ay politique ñi nga fa woon bëri fa ak société civile mais seetlu soxna si société civile du mobiliser lu bëri amuñu ay militants parce que boo seetloo nit ci dañuy bëriwul ñuy militer ci ci société civile parce que doo yaakaar ci ñoom poste doo yaakaar ci ñoom bourse doo yaakaar ci ñoom lu bëri ñoom dañuy kaas rek bëgguñu dara ñu ni ci ba dans une autre dimension noonu la leen gars yi di waxee moo tax mënuñu mobiliser ñoom mën nañ nag gàddu ay ay ay ay cause mën nañ ko défendre mën nañ sampoon mm. ñu ne nañ jël une personnalité neutre ñu jiite ko boo seetloo amoon na m amoon na bureau euh, euh, président Alioune Tine moo ko doon jiite mm-hmm. Euh, euh, président PIT Amath Dansokho topp ci ginnaawam ñoom Zahra Iyane Thiam ñoom Abdou Aziz Diop ak ñoom Abdou Latif Coulibaly ñoom ñëpp ñu ngi woon ci bureau mhm. euh, ko waa Yaana Mar yi par exemple il faut saluer leur participation nekk ci ñu woon à temps plein mhm. mais tamit c'était un une frange un groupe social très représentatif boo xam ne dafa doon bokk ci collaboration yi mhm. donc looloo indi bi après commencer di continuer parce que y avait d'autres d'autres sujets suñu on parlait par exemple du du du, du troisième mandat ou de la troisième candidature ou pas on mhm. parlait quand même euh, de de l'organisation des élections le électoral amoon na ci débat il il fallait débattre te on avait appris du passé que ni du benn wala ñaari parti wala ñett ñoo koy mais kuréel moo koy régler mm-hmm. donc ñu ngi doon waxtaan ci ci ci ci ci ci notion dynamique notion administrative bi euh, n'est-ce pas institution yeeg yooyu mm-hmm. mais ñoom la ñuy porter le combat sur le terrain mm-hmm. et depuis de toute façon de vingt trois du vingt trois juin ba yàlla di def le président Abdoulaye Wade di fi jóge ci jàmm Euh, yoon boobu yëpp c'est jalonné par de des combats que nous avons de mm. euh, des dates symboliques gis nañ fi ñoom Mamadou Diop bi ñuy gaañu euh, gis nañ fi vraiment ñoom Fodé Ndiaye bi biñ fi ñàkk seen bakkan. Mm. ak yooyu yëpp c'est des choses qu'on regrette. bëgguñu kenn di dee mais c'est des c'est avec l'histoire yoo xam ne mënuñu ko woon manqué. Mm-hmm. alors m bii nga fi wax nag. mën naa Euh, dee na mm-hmm. diggante bi lu bari itam xew na fi ñu jàpp mm-hmm. ne sax xëy na nguur gi président Macky Sall nga xam ne jamono jooju xëy na yéen a àndoon di xeex bi mu ñëwee jéem mm-hmm. na euh, manipuler ñeneen ñi itam xëy na ci moom la ñu nekkoon ba tax mhm. daal ñenn ñi gisatuñu seen bopp ci M23 ak li ko taxoon a jóg njortu mhm. naa ne laa waral cos M23 juddu bu dul noonu itam nga leeral ñu waaye tey mouvement bi fan la toll ak itam tasaaroo googu lana ko indi waaw li nga wax moom dëgg la xam nga dafa am yoo xam ne moom laa lay wax sànq ne la bu la yombee bul naagu foog ne ñëpp la yomb mm. xam nga ay ay ay ay jëm ñëw di xeex ku nekk ne la askan wi moo ma tax a jug bul ñàkk bët mukk ne am na ñoo xam ne xëy na askan wi taxu leen jug mm. seen bopp moo leen tax a jóg mais dañuy ñëw nekk ma riirandoo parce que bu dee nit am na xel askan wi rek tax laa jóg nga gis M23 li mu liggéey ci démocratie Sénégal man damay jàpp ne da nga ko waroon protéger saxal ko parce que c'est un esprit saxal ko defar ko ba nga xamante ni dina nekk kuréel boo xam ne saa su waree yëkkati kàddu ci ni ñuy yore mi doo ko boo ko pouvoir doo boo ko opposition mu nekk euh, benn benn benn dynamique citoyenne organisation sentinelle d'alerte boo xam ne day am peut-être force de proposition par rapport au mécanisme de gestion de la euh, chose républicaine mais it di taxawal askan bi alors bi président de la république faloo ba def prestation de serment am le 2 avril 2012 ñu jógee fa foog naa def nañ euh, juróomi weer rek ñu mettre en place COS M23 juróomi weer parce que euh, ñun ñu installé COS M23 au mois d'août 2012 à la RADDHO hmm. alors li indi COS M23 mooy à un moment donné ñenn ci ñun ci nga xam ne ñoo doon jeune M23. Mm-hmm. dañu leen jox ay poste de responsabilité. Mm-hmm. ñoom Barthélemy nekk ay député ñoom Thierno Bocoum nekk ay député patati patata et tout ça mais ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ doon jox ñu naan dañuy ñooy taal ñooy dem porter xeex bi kenn jëlu leen en considération. Mm-hmm. alors mu am ñenn ci ñoom ñoo xam ne bi ñu euh, bi ñu bi ñu bi ñu fêté 23 juin 2012. parce que boo fàttali ko en 2012 fête nañ 23 juin dinaa la ci am wax lu ma la ciy dolli sa après parce que tëj waaw parce que le 23 juin 2012 gars yi jigéen nañ Sandaga dem ba ba ba buntu assemblée nationale su ma juumul ñoom El Hadj ñoom Alioune Tine ñoom Mimi Touré ñoom ñëpp dox nañ jamono ñu bi ñu fa jógee nag la ñenn ñi woote rado mm-hmm. man ni ñu wooyee ñëpp noonu lañ ma wooyee ma ñëw toog mm-hmm. ba ma ñëwee toog ñu ne ma ki woote woo ñëpp parce que jour boobu na Thierno Bocoum ma nga fa woon mm-hmm. bo jour boobu Moussa mbay ma nga fa woon mm-hmm. xam nga donc ñëpp ñi bokkoon M23 ci ay jeunes député ou pas presque ñu nga fa am ku ma ki ko woote nag ne ma diw jiiteel réunion bi mm-hmm. ne ko ah réunion boobu pour lan lan mooy l'objet de la réunion mu wax ma li ma la wax nii ah ma ñëw jiite réunion bi ñu waxtaan bi ñu waxtaanee mu am génnee seen xalaat ne non nañ def un mémorandum par rapport aux préoccupations des jeunes hmm. du Sénégal hmm. yaa ngi comprendre ñu teg en place une commission am ñu proposé na ko na ko Abdourahmane Sow jiite man proposé wu ma sam bopp hmm. mu amoon beneen pàcc bu ne M23 kenn moom ko Sénégalais yëpp ko moom doomi réew mi dee ci bërëb bu nekk ndax xeexu M23 lu ñu nangu tey du ñu nangu ëllëg mu am ñuy jël M23 bii di ko mbubboo parce que dañ ci bokkoon pour ñu leen ci jox ay poste ku bëgg poste na dem ci sa parti ñu jox la poste bu kenn utiliser M23 di ko wutee poste hmm. loolu moo ñu mujj tënk ñu d'accord ci parce que tamit bu ñu waxantee dëgg man ci Zahra Iyane Thiam laa nekkoon hmm. yàlla def na tey i ministre la maa hmm. doon le chargé de euh, secrétaire national à la communication su membre fondateur et créateur de ce parti depuis 2007 Agnès Bergane Kanouté bi ngay dégg man bu ma demee taxaw ak Zahra ak moom la may wax ak moom danaa ko am mais musuma laaj CV ba ma jox hmm. parce que man ba may jug di dugg ci action citoyenne bi yàgg na lool mais dama ko doon waxtaan ak sama borom man kuy kuy xeexkatu injustice la tant que maa ngi nekk dans les dispositions yu ma koy defee hmm. donc biñ jógee ci loolu ba d'accord nag M23 bi du pour poste on s'est mobilisé nag ne dañuy def sentinelle hmm. mais dégguwuñ ci woon nag suñu ay suñu ay leader parce que bañ ko defee dañu commencé woo dañu ŋàññ on avait pris la liberté en tant que jeune du m de faire de la communication bi nga xam ne moom lañ jàpp mm-hmm. parce que moo fàttalikoo ci jamono yooyu le président de la République dafa jël madame Aminata Niane bu APEX def ko ministre conseiller ah. bi koy def ministre conseiller avait un contentieux avec l'État du Sénégal sur cent millions mm-hmm. waaw ñun d'accord ñu woon koo xam ne dafa war a compte bu dee yow da ne changement la tax a jóg ku ku état du Sénégal di laaj cent millions nga jël ko di ko jox parce que yow fa nga jëm xam nañ ko mm-hmm. alors on a commencé à dénoncer mais balaa ñuy commencé à dénoncer boo fàttali ko ci mois de septembre boobu ñëw mm-hmm. inondation bu metti ba ba ñuy di Sénat ca la ñëw mm-hmm. alors suñu première sortie officielle boo fàttali ko RTS la man maa jël kàddu foofu ne ñi ngi lancé un appel national à la solidarité pour jàppale président de la république ci mbënd bi jugee fa dem seeti bi le président du Sénat ak travailleurs du Sénat seeti Pape Diop mm-hmm. nekkoon na jàppale président de la république ci Sénat bi mu mu bugg desul parce que xaalis boobu xat na feneen moo tax tey jii bu ñu bañee ku leen ne seen institution yi dafa budgété da ngaa fàtte ne ni bi mbënd bi amee da ngaa da ngaa dindi Sénat ah. jël euh, que nee nga na njëriñ alors loolu yëpp jot ko fi def ci ay démarches mais suñu leader yi mm-hmm. dafa teel pour wax ñu ne leen no dafa teel pour laaj le président de la République des résultats parce que boo diggaale cinq cent emplois cinq cent mille emplois toogagoo semaine sax wala weer ñu ne la ana emploi yi boobaa dañuy gàtt xel dafa teel mm-hmm. boo digaalee ni da ngay renflouer les les caisses de a defagoo un an ñu poñale ci dafa teel mais nag bu dee di changement nga xam ne jarul dërëm ay loi yooyu dugal ci ci ci assemblée nationale bi am nga majorité pour nga changer yenn disposition yi nga xamante ne ñoom ñooy indi l'abus du pouvoir manipulation des institutions defoo ci benn affaire kooku bi ñu xaar ba ba ay euh, at naan noonu nañ ko may temps dañ lay wax wala sa doxalin sax yow sa doxalin dalal suñu xel la nga jëloon ci assise national bi respecté woo ci dara te signé woon nga ko fa nga jëm ñun ñëpp xam nañ ko foofu dafa teel amul hmm. donc conflit boobu la am ak suñu ay ay ay ay ay leader ñu bëgg ñu bundu xatal ñu ne leen attention fii ñu ñëpp ko bokk hmm. alors moo tax nag le 23 le le le 13 12 euh, janvier 2000 2000 2013 assemblée générale bi M23 woote mu am coow. Hmm. parce que coow ba fa amoon mooy dañu jël képp koo xam ne da nga bokk ci nguur gi ci gu ci mouvance présidentielle ñu convoqué la. parti bu nekk ñu jox la deux deux ak société civile bi fa mais ñu ñu woo ñëpp c' est des gens qui étaient autour de l' État. Hmm. autour du président de la République. alors mënuñu defoon le pouvoir bis repetita c'est-à-dire mënuloo am un pouvoir central boo xam ne président de la République moo koy gérer ba pare nga créé waat benn structure boo xam ne dafa war a équidistante dafa war a yemb dafa war a nekkal askan wi ñëpp bokk ko nga bëgg ko jël joxaat ko ay nit ñoo xam ne ñooy ànd ak président de la République daf leen di tënk daf leen di ñu ne loolu du fi am ñu am fa nag ay dóorante yu métti ñu indi fa ay nervi et puis li symbolique les mêmes policiers yi nga xam ne ñoo doon servir Ablaye Wade di 23 juin. Mhm. di ñu di ñu dóor. policiers ñoo fa moo tax ma ne la <laughs> seen métier dafa xaw a doy waar. <laughs> indi fa seen ay nervi mhm. ñoom El Hadj ñoom Penda Mbow ñoom Youssou Ndour ñu càpp ca ñu jàpp ne kenn du jël M23 di ko def association. Mhm. di ko wutal kayit di jël waa état bi di ko fa def. après mu nekk fi di fi par parloo néewal doole opposition te su ab réew il faut que force yi équilibré mm. looloo indi euh, gën a doole ko ñu ngi may wax bërki démb di ma xupp naan ma COS M23 mi ngi juddu ci assemblée générale boobu ma leen déedéet COS M23 mi ngi juddu mois d'août le 11 août 2012 te ñun assemblée générale bi 2013 la woon mm-hmm. mais ci diggante bi dóorante ñu fi ak dóorante yu métti ak suñu ay ay parce que ay dafa teel ak non non c'est que c'est-à-dire ñu na di am loo leen xaar mm-hmm. mën ngeen juum nag wax jooju sax xawoon na leen métti mm-hmm. mais nag loolu doon duru doo ñemee xupp doo ñemee kaas waa ji bi ngi falu la ñu doon ànd di xeex Mamadou Diop dee lañ doon ànd di xeex Fodé Ndiaye dee lañ doon ànd di xeex ñu dóor fi xale yi lañ doon ànd di xeex économiquement ngeen yàq réew mi tey jii ngeen ñëw yéen ñëpp ngeen nangu ko ne mu ñu ne leen ñun duñ ko nangu parce que sax kenn ci ñoom tey jii ministre la woo nañu fi Café de Rome ma ànd ak waa cos M23 ñu toog mm-hmm. mu ne ñu président moomu yónni nee na ngeen arrêté coow ñu xool ni ñuy organiser mais ci mujj deel wax nga daf ñu ne mm-hmm. il faut accepter d'être utilisé mm-hmm. comme nous nous acceptons d'être utilisés parce que c'est le système qui est ainsi fait ah waaw wax ji dafa diis. ngeen dootu ko la mais non dootu ko répété bëgguma wax turam tey ministre la fii mi ngi fii mais dootu ko waxati. dañ ko rentré ba mu saf ne ko loolu c'est c'est c'est trop grave donc vous vous préoccupé hmm. à l'accès au pouvoir mais no à la défense des intérêts mm. des populations et des communautés parce que tey la nga doon xeex ba ba ba Fodé mais benn bakkan hmm. dafa rëy ci réew hmm. on a eu quatorze morts dans ces conflits vous nous dites aujourd'hui acceptez leen lañ doon bañ démb ba nit yi dee mais loolu du waxu nit ku yemb pour vous dire l'état d'esprit mm-hmm. de nit ñi bu ñu yeggee ci pouvoir donc dañuy ñëw ci télé yi comme na may def mujjantal bay wax wan ndax ci dëgg laa nekkoon a déet mm. mais buñ la waxee théoriser rek nga ne waa jàngoon mm. fekk ci suuf ay marché moo leen tax a jóg mm. ak ay poste mais nu nit dee c'est machiavélique loolu wax mooy la fin justifie les moyens na Sénégalais yi dee na réew mi tàkk l'essentiel naa xupp Abdoulaye Wade ni dafa bon buñ ko fi ma falu après am lu ma yóbbu sama kër rek séddoo ko nit ñu def paaco loolu moo leen taxu na jóg donc xeex boobu ñi gàmmoo ñi raas y a des de de de de noms symboliques. Hmm. bëgguma ko tudd mais waxtaan bee tax tey jii bu ñu waxee Abdou Latif Coulibaly euh, da ngay da da ngay désolé. Hmm. bu ñu waxee bu ñu waxee euh, Abdou Aziz Diop da ngay désolé. Hmm. Euh, bu ñu waxee Penda Mbow da ngay désolé. ah ñu bëri si ñoom bu leen bi biñ ciy njëkk sax ki ci njëkk nga baal ma mooy kilifa réew mi buñ tuddee turam da nga naan mais en tout cas tas na suñu yaakaar waxante wu ñoon ak moom lii gis nga bi ñu bi ñu ne waa assise nationale nee na lii lu mu def jël six cent millions jox ko ñoom Amadou Matar Mbow wërloo leen réew mi ñu defar ay kayit indi ñu jël sànni fële mm. seenéer yi ban njëriñ la am donc moom moo njëkkee ñàkk dimension boobu ñu doon xaar ci moom dimension kilifa ci sa say kaddu jéego yi nga teg parce que tamit moom mi dafa am parcours moom dafa bokkoon ci ci pouvoir bi doon xeex juróom-ñetti at ma nga fa saa yu daan xeex da daan génn di jàmmaarloog ñun mm. et Sénégal seetlu leen benn affaire soxna si mm. il sera très rare très rare dans ce pays mm. mooy wàññi ci ay baaraami loxo du bëri mm-hmm. un leader politique quel que soit son nom et ses prétentions dans ce pays qui aura renoncé aux avantages pour un intérêt pour l'intérêt général koo fi dégg rek koo fi dégg ci ñoom soit daan na ci nguuru daan na ci laal wala conflit moo ko mais rare na nga gis ku tekki nombal tànkam ci réew mi ndaa jote feek président de la république parce que tout simplement ma ngay caxat caxatee réew mi wala ne mu ko yoree di noonu mm. jour boo ngeen amee conflit nag crypto personnel mm-hmm. fekk daan nga ciy càpp muy neex jour boobu ngay génn def dans la communication propagandiste wax la ca bon wax la ca bon am benn presse boo xam ne parce que nag réew mi bu yàqoo presse mu fu baaxee mais ko yàq mm-hmm. la presse sert à manipuler les masses hmm. am ay journalistes yoo xam ne nga baal ma dañuy jaay seen kor dañuy nekk dans la propagande dañuy encaisser xaalis di di construire ay nit hmm. toog naa fële tàngale benn plateau euh, waxewu ma ko sax wax bu ñaaw mais hmm. journaliste bi mu ma laajee loo xalaat ci diw ak diw tey ci ci ñooñ ci pouvoir bi lañ bokk tey jii ñu ngi ma ne ko mais madame il faut arrêter ñii ñoo ñu doon saaga démb ak bërki démb xas bu ñaaw bu nekk def nañ ñu ko boobu ñi ngi am ay responsabilité ñi nga am seen i oto ñi ngi am seen i salaire ñi ngi dimbali seen i mbokk buñ demee ba juyaatloo président de la République bugg génn xupp président de la République yéen presse bi ngeen jël leen teg leen en avant ñun ñi nga xam ne chaque jour ñooy porter xeex bi pour ñu ñëw seen plateau yi sax c'est un problème vous préférez amener des gens yoo xamante ne ci soxal réew mi lañ bokk wala démb li ngay kaas tey bi nga koy gis démb waxuñu si dara léegi jubóo jubóo déglu nit ñi ak waa ji ngeen ko jël mettre leen en avant ñu bëgg leen porter comme des héros dans ce pays il faut arrêter. Hmm. donc pour te dire que ni. problème yooyu tamit dafa am ci réew mi. presse bi daf ci am responsabilité. presse bi daf ci am responsable la presse elle elle une mission euh, éducatrice dafa war di yar askan wi. Mhm. Abdourahmane Sow waxtu bi dab nañu lool. Euh, xëy na bëggoon nañu ñëw ci tey yaatal waaye démb euh, jël na daanaka li ci ëpp. ci gàttal rek junj nga ko sànq nga ne la ngeen doon xeex démb ba ñu yegg ci 23 juin 2011 moom nga gis muy rek tey en une minute parce que waxtu bi jeex na. waaw man de dama ciy profité bu dee président de la République am loo xam ne COS m ko yàgg wax mooy fàttali rek ne bi ñuy parce que chaque juin dañuy def un événement. Mm. le juin 2015 fi woote woon pencum askan wi. Mm. tuddee ko dialogue convergence waxtaan bi déggoo les réformes institutionnelles quelle conscience pour le Sénégal mm-hmm. Ismaïla Madior Fall Aïssata Tall Sall euh, Pape Mbodj euh, député AR Mayel Thiam bu responsable de APR ku jigéen ñi toog réew dañ koy waxtaanee parce que nañ leen ko def joo gis nañ ko waxtaanee ñoo ko ko jiite le président de la république ba ci bi ci covid bi sax da ngay seet ne ko waxtaan amul na waxtaan ak société civile bi hmm. na waxtaan ak way politique yi ñu ñu mën a xool nan la ñuy gàllankooree fitna yi nga xam ne mi ngi suñu kanam parce que wax naa la ko Covid bi mi ngi jël le pays mettre ko à terre économiquement doxatul nit ñi lekkatuñu liggéeyatuñu defuñu dara nga jógee ci Akilee on te parle de plus de cent quatre vingt sept milliards nga ñëw ci littoral bi dem ci foncier bi nit ñaa ngi fippu donc lu leen bett ñoom la bett mais ñun ñi nga xam ne dañuy kàmm du nekk ci mbir mi. Hmm. benn mooy xeex bi il faut ñu porter ko. ñaar mooy euh, ñoom ñi ngi nekk ci li ñu nekk problème yaa ngi fi. nañ nañ nañ def ay réorientation le président de la république lucide par rapport au enjeux mm-hmm. pour dara bañ ko pet parce que euh, kër yi tàng na dënn tàng na euh, ndaxte bi ñu nangu la am as tuut doyut ñu mm-hmm. bëgg di jël benn ay ñenn ñi ñooy ay baadoo la mm-hmm. ñeneen ñu sonal les bien-nés des fois ci kër diine yi la ñuy nekk des fois ci way politique yi la ñuy nekk loolu duñ ko kon duñ nangu te mën na indi fitna ci réew mi nañ waxtaanee réew mi euh, nit ñi ànd ak dal ñu nangu jël seen i ay préoccupations am volonté politique pour jéem au moins ba mu leer ñi nit ñi di jéem boobaa ñu dal mais bu ko deful rek wax dëgg yàlla li ñuy risqué mooy euh, amoncellement yi doon am 23 juin ba 23 juin am mm. en tout cas amoncellement yooyu ñi ngi am. Euh, ci réew mi ñaanuñu nag ñu yegg ca parce que fitna la la indi ci réew mi. Mm. yàlla nañu yàlla musal waaw waxtaan wi ngay junj boo sañoon xëy na mu am symboliquement 23 juin bi di ñëw. mais opportunité la moi man maa jàpp ne sax bi Covid bi ñëwee. Mm. Euh, euh, excuse valable la woon li le président Macky Sall woon depuis le départ mu amaat ko. Mm. bu la Ousmane Sonko cherché yaa na maar cherché la COS M23 di la liggéeyal ak ak le Rémocap ñu ngi wër ak ñeneen ak mais woo nga ne ñu leen ko gisee hmm. loo leen may conseil ñu conseil la nga dénk leen sax liggéey Ousmane Sonko keroog bi muy def conférence de presse dama jàppoon ne que euh, président dafay ñëw def conférence de presse de bilan président lii la ma santoon hmm. ñoo ñuy dénoncé mal gouvernance boo leen santee dinañ ko liggéey jaarale ko ci yoon hmm. dynamique bu bees la naru indi mi ñu mun ni waxtaanee lépp looy def ñu waxtaanee ko ñu accompagner ko indi dynamique bu bees mais boo amul volonté bi parce que am na enjeu d'enrichissement parce que am na enjeu de patrimonialisation parce que am na enjeu métti manipuler en tout cas tout ah, loo ci góobee rek nga gar ko. Mm-hmm. jërëjëf Abdourahmane Sow euh, am nañu mbégte lool euh, ci sekkoon ak yow waxtaan wi jëmoon ci M23 ak 23 euh, juin 2011 bis bu rëy boobu ak ni ko mm. Sénégal dundee ñu ngi lay mm. sant di la gërëm ci waxtaan wi. waaw man maa ngi leen di sant man it di leen gërëm ci turu COS m saa su nekk lépp lu ñu def ci réew mi nañ def te yàlla tax ñu ànd ceeg yar ak dal wante ñu ànd ceeg pas-pas parce que ñun suñu sacerdoce mooy l'essentiel du Sénégal. jërëjëf Abdourahmane Sow mbokk yi itam jërë ñi doon déglu waxtaan wi jërëjëf Diaw Diallo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam la woon ci kaddu gi démb tay la woon dig beneen dimanche incha ñu waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm